dañoo ñëwoon euh, installé cordinateur mouvement force ouvrière région de Diourbel ak ay démembrement muy ay vice président ak secrétariat ak euh, euh, trésorier yàlla def def jàll na bu baax si consensus dañu ñu fal le président di le coordonnateur du mouvement force ouvrière du département de de la région de Diourbel. mouvement force ouvrière ci doxalinam la ñuy doon xoolaat nan la ñuy def pour que ñu mën a demaat ci élection élection yu bees élection yi nag dañoo jàpp Euh, focus 2024 muy élection 2024 mouvement force ouvrière dina ci am taxawaay bu am solo bi nga xam ne dañuy participer te niñ ciy participer yaa yaakaar nañ ne mouvement force ouvrière moo war a tirer la locomotive maanaam euh, ñi war a gagné ñun mouvement force ouvrière maanaam suñu gannaaw ngay mën a jaar pour mën a gagné élection yi te am njort ne li ñu fi gis tey ci rencontre bi artisan yi yëpp jógee ci localité 46 département yi d' accord nañ mouvement force ouvrière dafay dem ci élection yi léegi nag ci forme bu ñu demee ci élection yi nag boo forme bi dinañ ci waxtaan ba gën au moins benn euh, coalition boo xam ne coalition bu am solo lay doon Euh, bureau bureau région de Diourbel dañoo ñëw ci constat mais quant à boo xoolee ci euh, coordination bi dafa amoon benn coordonnateur bi fi nekkoon moom moo nekkoon le président de l'union nationale des chambres de métiers mu ne moom bés ni ki tey gis na ne que coordination mouvement force ouvrière daf koy wàcce jël ko jox ma ko. donc ci loolu la la ñëpp accepté ne effectivement loolu mën naa nekk mais nag ci focus 2024 bi dañoo ne dañ fi teg loo xamante ne dañuy dem ci élection 2024. ñu fi dajoon mooy les 46 départements nga xam ne ñu nga xamante ni ci ñoo fi daje ci jël fi benn décision. waaw Diourbel ñu fi teg euh, coordonnateur mu tudd Bassirou Mbacké Dieng. moom nga xam ne ak ay kàngamam ñoom ñoo fi nekk mais boo xoolee au niveau national am nañ fi benn membre bi nga xam ne mu tudd Sene Ndiaye donc euh, coordonnateur Mouvement Force Ouvrière région de Diourbel mu tudd Bassirou Mbacké Dieng. Aujourd'hui, on est venu euh, dans la région de Diourbel pour euh, valider euh, le bureau régional euh, de Diourbel de, du Mouvement Force Ouvrière. On a réussi à le valider avec comme président Bassirou Mbacké Dieng et des démembrement au niveau de des trois départements que sont Touba, Bambey et Diourbel. qui a été retenu, c'est que le coordonnateur, euh, l'ancien coordonnateur s'est déchargé sur euh, le président Mamadou Gueye, qui est désormais euh, le nouveau coordonnateur du mouvement Force ouvrière. Les trois points, c'était la validation euh, du bureau régional. Le deuxième point, c'était l'horizon 2024. Quelle sera la position du mouvement Force ouvrière Le mouvement Force ouvrière s'est prononcé qu'il sera bien présent euh, sur euh, les élections présidentielles de 2024, soit en initiant une large coalition des travailleurs, des ouvriers, des artisans, mais aussi des citoyens lambda. Je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes. Bon, nous sommes euh, ouverts à toutes les parties prenantes, surtout euh, donner comme euh, directive le nouveau coordonnateur d'aller vers une large coalition et avoir un candidat. Euh, qui va être le candidat du mouvement Force Ouvrière. waaw donc li nekk suñ kalam bari na donc ñu ngi ci woon doon ci liggéey mais dañuy gën a yokk jéego yi parce que sas bu rëy la parce que région de Diourbel maanaam dañu am yaakaar ci man yàgg naa koy coordonné nag mais validation bi tey la woon. c'est parce que depuis boobu léegi ñu ngi ciy dox Force Ouvrière bi ñu ko créé ak léegi depuis 2021 la woon ñu nekk ci def ci doon ci liggéey defoon ci ay élections yu fi jaaroon ñu def ci am solo. donc nag mais kon su ñëwee tey au niveau national ñëw pour valider li nga xamante ne nii moom moo fi nekkoon donc loolu day nekk lu may rafetlu te donc boo xoolee tey ci région de Diourbel tiraillement amu fi biñ ñëwee avant ñuy ñëw fekk na waxtaan nañ suñu mbir mën lañ dénkoon bi ñëwee aussi tamit ñu ne ñu yow yaa ñu doy. bon jafe-jafe yi bon am na mais nag de toute façon comme artisan yi la teg fii ku fi falu ñoo la fal jafe-jafe yi mën na yomb si ñun c'est parce que gëm-gëm la rek parce que fii ku fi falu ñoo la fal. te artisan yaakaar naa ne dañ doon nelaw may yow nañ parce que boo xoolee tey jataay bi ñi déplacé wu bari na 47 département yi 14 régions yi ñëpp dañuy déplacé wu ñëw te kenn joxu leen paas ñoom ñoo ñëwal seen bopp cotiser seen bopp kon donc loolu kon lu gëm-gëm la kon donc ci biir loolu kon yaakaar naa ne artisan boo ci gis am na yaay am na papa am na doom te donc ñun ñooy fale comme ñu ñooy fale nag war nañu mën a fal suñu bopp aussi tamit bon mandat bi nag bon dañ ko dénkaane woon xam naa ne dinañ ci gën a waxtaan comme moment bi nii moment politique la te toll nañ fi nga xam ne instant bi nii il faut ñuy jóglu jëli li ñu moom ci loolu lañ toll mais xam naa après dinañ ci gën a dinañ ci gën a yaatal